Fanta a nga xam ne dañuy woyal Fatou Diouf ñu bàyyi la nga dalal sa invité mu nuyu mbokk téléspectateurs yi. donc suñu invité bi Serigne Cheikh Bachir Ndao. alhamdulilah maa ngi mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp. jërëjëf euh, Serigne Cheikh euh, Ndaw ci kanam Serigne Cheikh Bassir Ndaw ci kanam tuuti ñu yaatal ci mag mu baax mi ñu fas yéenee waxtaanee laata loolu ñu bàyyi Fanta Suguna moom it mu dalal galam ganam Fanta. waaw euh, Fabel ma dalal ki nga xamante ne mooy sama invité oustaz waaw ñëwoon na fii ah. oustaz Ñambe Ñang ñu ngi koy nuyu oustaz nuyul téléspectateurs yi lii seetaan. alhamdulilahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum waa euh, téléspectateur Walfadjri maa ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu Serigne Cheikh di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu ñëpp macha allah. Uh-huh. Fanta nga indi waxtaan bu am solo tey ñu fas yéenee waxtaanee nga ne ñaaw ñaaw njort. ñaaw njort alors ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga wéyal. waaw oustaz euh, dañuy laaj ba xam ndax euh, jullit bi euh, war naa mun a toog saa su nekk rek di ñaaw njort ci moroomu jullitam. Uh-huh. en tant que oustaz. waaw maa ngi nuyoo waat di ziar bu baax. Uh-huh. di jiital nuyoo bi nag suñu kilifa. alxaaji Mouhamadul Amin Niang. bu muhajir wal ansar di suñu xalifa bu famille Tafsir Ibrahima Niang yëpp mm-hmm. di nuyu itam waa maam Salif kër maam Salif Mbeng yére bii ma sol sama sang moo ma ko jox muy soxna xali euh, muy xalifa Mbeng di doomu xalifa bi macha allah ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi koy nuyu bu baax fante andi nga am solo muy wàllu ñaaw njot mm-hmm. ñaaw njot moom defe naa ni bu mën naa ni sax métier la léegi mm-hmm. mën na ni métier la waaye yàlla wax na ci aaya bu dee waar ni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu yàlla nee na ba ngeen bëggee xam bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi mhm. nee na ñaaw njort ci la bokk te ñaaw njort nag li muy jur dafa bare mhm. ñaw njort dina jur féewaloo mhm. ñaaw njort dina jur yàq der dina jur jëw te yooyu yëpp baaxul dina la pousser sax ba ci fenn wax loo xam ne amul lépp ñaaw njort dina ko andi euh, yent yàlla suleymaan alayhi salaam la ko la doxoon si digganteem ak balqiis la reine de Saba bokk na ci ñaaw njot léegi rek xaaj Maodo moom la doon net moom la doon waxtaane yónni xeeb na sax yónni nit keroog picc la yónni muy hudhud picc bu ñuy wax mu Moussa Njuburi keroog moom la yónni jox ko lettre ndax ñaawoon na njot ni yaakaar Souleymane day ñëw pour jël nguuram mu yónni ko ni ko demal joxal ma ko lettre bi bu fekkee nguur rek la bëgg mën naa ko jox alal ba mu doyal ak la ca xew yëpp ci gàttal mm-hmm. waaye daal fanta ñaaw njott mm-hmm. nekk na jikko joo xam ni te bare na lu tas léegi réew mi ñaw njot boo demee ba ci biir aaya bi sax yàlla mi ngi naan ay yuhibbu an euh, ndax bëgg ngeen yéen ñu jël ne boo xam ne seen mbokk bu ñu tëral sang ka sang ka di ko waajal jullee mm-hmm. euh, nga ñëw di dagg ci yàpp bi mar daytaali di ko lekk mm-hmm. xam nga loolu ci déggin sax dafa ñaaw mm-hmm. mu ni fakkari tumoo loolu sax ku ko dégg yàlla sax avant ñu ñuy tontu yàlla tontu na ni loolu dafa ñaaw nekk na loo xam ne rafetul te nag jëw dégg ngeen li ci yàlla wax waaw ah, jëw dafa mel na ngay dagg yàpp nit di ko lekk. di ko loolu la jëw mel. kon ñaaw njott mën nañ koo méngale ak jëw. mën nañ ko méngale ak jëw. Mhm. parce que ki ngay ñaaw njott dafa mel na agence secret booy yoon waaw renseignements généraux yi ngeen di gis. Mhm. fant Oustaz Ndiambe kaay xoola ma Fanta ci lan la nekk fant fu muy dugg ak li muy xëy est-ce que Walfadjri la jëm. nangam nangam yaa ngi ñaaw njott mais aussi dina andi féewaloo. ndax yàlla nee na wala tax euh, bu leen dig bu leen bu leen féewaloo seen diggante ndax ki ngay ñaawal njot yaa ngi koy indil mbañaan tey boo nee Fanta suivre ma ko ci lan la nekk damay ñëw ci Fadel ah Fadel ba Fanta fii lay liggéey ba mi ngi ñëw par heure Fadel bu fekkee am na loo xam ni mën na ko yàq ci si Fanta mën na wax loo xam ni ah macha allah yow yaa koy wax loo bu dee soppeem la dañ laa Fanta de jàmbaar la wax dëgg yàlla première heure mooy njëkk ñëw fii lay toog def liggéeyam na mu ware bu ko defee li ci xew yëpp yow mi nga xam ne yaa yónni woon si ngay mën am résultat waaye nag balaa ngay am résultat fekk na yow féewaloo nga nit ñi parce que daa si xam noonam daa si xam soppeem te góor gi alxaaji Tijaan dafa daan wax ni rahimallahu alayhi ñu ngi koy ñaanal barki dem loon anniversaire ak suñu sœur bu ñuy ñaanal tey soxna Penda Ñang yal na yàlla beesal seen yërmande ak yaa su ñang mu ni nit koo gis ak nee na am na ñaar ñu la seq ñii dañ lay bëgg ba yomal xiyam ñii dañ lay bañ ba yomal xiyam ñi la bëgg ba yomal xiyam lu baax rek la ñuy wax ci yow boo doon naan sàngara sax dañ naan kii diw ku baax la dafa juum rek waaye ku baax la waaye bu fekkee ku ku bon la nag ku la bañ nee na boo doon wàcc kaamil chaque jour mille kaamil dafa naan ah ngis solde moo tax mu koy def waaw nee na nag ñaan ñooñu boo leen xamee yow da ngay rafetal parce que toujours dama koy faral di wax ñun dana am chance ñun xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas nee na ñun ñoo gën ci xeet yi nga xam ni jaar nañ fi ndax xeet yi bari nañ yàlla jox ñu téere bi téere bi gën a ci téere yi muy alquran zabur injil téere yent yàlla Moussa Isa yooyu yëpp jaar na fi mais ñun téere bi nu yàlla jox mooy alquran yàlla jox nu yonent bi gën ci yonent yi sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni nag lii charte ñi nga xam ni bokk nañ ci xeetu Seydina Muhammad mooy taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar di digle lu baax waaye te ñekk nekk ca nag booy digle sangu day fekk nga sangu ba pare wa tanhawna anil munkar di tere lu ban foo toll di tere lu bon. di tere lu bon dañuy gis ni <laughs> ay ca fanta loolu euh, maanaam ñaaw njort bi fabel ci ñun rawatina ci ñun jigéen ñi la uh-huh. gën a bari tey ji nii uh-huh. bërëb liggéeykaay ba bërëb même ci ci ci biir xew yi sax uh-huh. dangay gis nit ñëw toog rek ñaaw njot ne kii mii ci man la nekk wala mu may jëw yu mel noonu dañ ko gis daal dafa bari daal ci jigéen ñi dëgg la xam nga lu ko waral mooy ñàkk gëm yàlla rek xam nga yàlla dafa wax ci alquran ni wa ma min dabbatin illa ala amul benn mbindeef wàcc ci kaw suuf lu dul dafa wàcc ak wërsëgam mhm. toujours dama koy faral doo wax ma ni Sénégal ngay gis mhm. ñu añ ba suur naan seen njar mhm. naan seen boisson teg seen fruit teg seen euh, attaaya ba pare naan réew mi neexul réew mi kañ lay neex li koy waral mooy ñàkk gëm parce que boo nee diw day bu sañsee man lay toppandoo diw li mu def tey man lay gaaral xamoon naan bu dajee ci xew bi lii la lii la may kii man lay moo tax ma mu dem àbbi moo tax mu dem lépp déjà yaa ngi jural sa bopp ñaaw njot yaa ngi jural sa bopp bàkkaar parce que yaa ngi wax loo xam ni dara wóoru la ci mm-hmm. te nit la lay wax na la wóor mm-hmm. te al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi mm-hmm. alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni julli dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mucc nañu ci làmminam ak ci bëtam ak ci loxoom d'accord oustaz may faral di dégg euh, ñu naan euh, am ñaaw njort am na fu mu baax mag ñi dañ koy wax euh, hmm. ci diggante lu ci mel ni jur ak doom kilifa bu nekk ci biir këram hmm. nee nañu baax na des fois nga ñaaw njort ci njaboot gi hmm. amaana dina dina la permettre nga mën a di bàyyi xel ci yu baree bare wala ñaaw njort fépp la bone waaw moom ñaaw njort foofu ak fen lan man lan man yemale foofu seen àtte léeg-léeg nga dégg ñu naan fen am na fu mu baaxee. wala fen buy defar. <laughs> moo gën dëgg buy yàq <laughs> fen moom fen la rek fen la rek waaw yàlla nee na bu leen fen. <laughs> parce que booy jàng xam-xam sax liñ lay njëkk tere. mooy fen wa yaxrumu alkazibu. wal xiibatu ñëw wal namimatu yi si topp jëw ak rambaaj ak te yooyu yëpp fen moo ko gën a garaaw. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ndax jullit dana naan sàngara dafa ni waaw. jullit dana rey nit mu ni waaw jullit dana ñaaloo mu ni waaw jullit dana fen mu jógaat toog. ni jullit du fen mu ni jullit du fen wax ko mm. ñetti yoon mm. ndax li mu foor baat bi ni mu foore ci moom te nit buy wax eh, loo xam ne du dëgg ci moom mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy janoog sa xol mm-hmm. am nañ nit yàlla yoo xam ne sax yàlla may na leen dañuy mm-hmm. fen parce que Serigne Cheikh waxoon na ko nee na nit dina fen ba ñu tàpp bindal ko bàkkaar ni kii fenkat la boo xam ni fu mu romb rek dañuy tëj seen bunt parce que fen baaxul li muy yàq foofu foofu doguma la mm-hmm. dama dégg oustaz Adi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak mm-hmm. oustaz Assane Diouf ci waxtaanu àjjuma waxtaanu jeudi ci mm-hmm. guddi yi ñuy def muy guddi àjjuma yi euh, la dernière fois euh, euh, oustaz Assane di ko laaj mu ne ko ci jëw am na am na nit noo yàqee daram nee moox néew buy dox mhm. ñoom ñooy yem ci kaw suuf mhm. néew buy dox ci kaw suuf des fois nga waxal nit loo xamante ne fànta mhm. nit danaan da danaan jàkk seen la ngay ñëw rek mu ne noppi leen ñu ngi ñëw te amaana xamalu la dara amaana nekkul ci yow amaana amaana amaana te juste ku nit a jug rek bëgg a yàq waxal la loo xamante ne yàq na sa àdduna waaye lépp rek euh, yooyu yëpp bu xewee man dama naan da ngay jël lépp rek toog teg ci suñu loxo borom ndax moom rek moom moom a ngi nuyuwaat xaaj Lamine Niang di ko ñaanal. Mhm. ndax tàggat nañu ci diine. Mhm. li góor gi taxawoon yëpp defe naa sëñ bi war nga ko dégg alxaaj Mouhamad Lamine Niang. macha allah di nit ku baax. Ah. koo xam ni xaala laaw xaala rasul. yal na ko yàlla dolli jàppale sëriñ Birahim Niang rek tey si loolu lay waxtaanee. ci mhm. jaar jaar góor gi macha allah suñu mag. ndax benn baatu jëw yeneen mi nee na moo gën foor fanweeri njaaloo benn baatu jëw rek nga wax benn nit loo xam ni nekkul Aïcha mës na toog ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu toog di waxtaan ba mu yàgg benn waay romb sol abbaaya naa Aïcha ni ah waa ji day abbaayam bi rafet na waaye daal li ko yàq mooy dafa cëkk tuuti <laughs> bu ko mënoon wàcc nag ba suuf <laughs> defe naa mooy dàqati ah, yenent bi daal di ko woo daal di ko dóor ci gannaaw mhm. mu ni ko wàccul mu wàccu muy deret hmm? mu ni ko lii bu fananoon ci yow Aïcha safara nga jëm waaw jëw benn baatu jëw moo gën a fort fanweeri mhm. njaaloo nit di mhm. xoolal njaaloo li mu grave mhm. te it bi si des mooy maanu oustaz oustaz bala nga bala ngaa jàll foofu xam nga yaa yaa ngi may wax jëw Aïcha xëy na la mu wax sax am na mais dafa am ñaari jëw mhm. daf ci am jëw boo xamante ne da nga cee jug pour yàq der nit ki mhm. pour yàq nit ki mhm. am jëw boo xamante ne xëy na nit kee ko def sax nga waxtaane ko ñaar yëpp benn baaxu ci wala am na lu ñu mën a waxtaane xam nga moo tax dañ ni dégg ni tëll rek ni damm na nit du loo gis rek wax ko yéen ci yàlla Moussa ci gàttal dafa ñëw ci yàlla ni ko dama bëgg nga wan ma sa maanu yow yàlla lan mooy maan yàlla ni ko demal ci taatu garab gale te nga xool ci teen bale loo gis rek yonent yàlla Moussa làqatu di xool teen bi ñu jékki benn waaye ñëw yëg ci benn fas yor benn saaku wàcc naan ci teen bi ba pare daw daw ak fasam waddal fa saaku bi benn xale ñëw di naan si ndeke saaku bi xaalis moo si nekk mhm. xam nga mbéy ngeen xam naa mbéy la sant rek mhm. ñëw di naan rek fekk saaku bi rek daal di fëkk saaku bi daw talatul naan ñu tuuti rek benn silmaxa ñëw di naan di làmbaatu waajale yàlla tàggat ko xel mi dem ci saaku bi Mhm. mu wëlbati ko di ko jël ñëw fekk silmaxa bi di làmbaatu mu ni ko waaw kokkal mu ni ko dimbali ma waay waa ji ñëw poñe ko ko sama xaalis laa bëgg mhm. ndax man ak yow ak yàlla rek ñoo nekk ci àll bi kenn nekk fi mhm. silmaxa bi ni ko yow yàlla la indi maa ngi bëggoon ko ma dimbali ma naan mu ni ko sama xaalis génne paaka ni ko boo kiiwul sama joxul sama xaalis dinaa la silmaxa bi def kaf waa ji def dëgg mu daal di ko rey mu dem yent yàlla Moussa yàlla ni ko mooy sama maanu Moussa ni ko ah yàlla tey de boo doon nit la ma ni juum nga tey def nga erreur tey waaw moo tax te yow nag laa taaxasu sinnatun wala nawmun lahu mm-hmm. nelawoo sax gémmantuwoo sax bay nelaw mm-hmm. te gis nga yëpp yow xam nga ne xale bi moo sàcc xaalis bi mm-hmm. waaw xale bi euh, paa bi innocent la ndax deful dara yàlla nag ni ko moo tax alaysa allahu bi ahkamil xaakimin ëllëg yowmal xiyaam am na ñetti àtte kan ñëpp naa leen àttewaat moo tax àtte dafa garaaw ñetti attikat yi ban ak ban la ñetti attikat mhm. mooy koo xam ni xam na dëgg mhm. waaye dëgg ci bal bi mhm. du wax dëgg koo xam ne xamul dëgg xam dëgg ba pare toog xamul xam dëgg ba pare si ñëw naa fekk fanta ma ni ko man dama rey nit te xam naa ni rey naa nit fanta ni ma naa la naa ci fexe ba génne la ci jox ma temps ma génne la yàlla neen bu ma ko àttee dinaa ko tëj dinaa ko mbugal am koo xam ni xamul dëgg di àtte dëgg xamul la xew mhm. mais dégg na ni client am am na problème mhm. mu ni ko jëwal ñëwal gaaw ma génne la sinon bu ñu taxawul du baax moom xamul la xew ah, xamul la xew mhm. wax a wax ba ñu génne ko yàlla ni alaysa allahu bi ahkamil xaakimin kooku dinaa ko attewaat te bu ma ko attee dinaa ko pini ki xam dëgg nag tey atte dëgg mooy mooy nekk ci dëgg mooy ñetteelu atte waaw yent yàlla Moussa nag yàlla ni ko gis nga nag sama atte nag lii moo sama maandu nii la gis nga xale bii jël saaku bi xaalisam la jël si maanaam ndonoom papaam dafa fekkoon muy waajal génn àdduna mm. mu dajale alal ji yëpp jox ko góoru silmaxa bi booba silmaxaagul mm. ni ko xale bi bu màggee joxal makka mm. ndax mooy <laughs> si donam paa bi nag mel na ñangeen rek di si noos di ci noos ba xaalis bi des loolu yàlla muur bëdi mu yónni waajooju borom fas bi sàcc la mu ñëw sàcc xaalis bi mm-hmm. <laughs> yàlla tàggat ko ci teen bi moo dal ko fa uh-huh. mu yónni xale bi mu ñëw jël si uh, alalam nonom kon xale bi sàccul sàccul uh, kon noonu uh, innocent la ca kanamu sunu borom ca kanam gis nga yàlla <laughs> waaw ñun nag li ñu gis rek la ñuy àtte waaw mm-hmm. mooy su ma ko fekkee woon tey ji dama la loolu ngay wax da nga xale bi mën nga ko rey sax <laughs> waaw mm-hmm. léeg nga gis moo tax dama koy faral di wax uh-huh. léeg nga gis groupe buy dàq sàcc mm-hmm. fekk na am na koo xam ne ci groupe bi uh-huh. def na loo xam ne buñ ko xamoon daanu bàyyi sàcc bi dàq ko moom daan bàyyi sàcc bi topp ko moom la ñuy topp parce mm-hmm. li mu def moo gën a garaaw mm-hmm. tey jii mën naa tuumaal nit ñu koy àdduna bi yëpp di ko gis nga li xaw ci wàllu sonko bi mm-hmm. ñëpp ñu koy coow yàlla xam te ñun am na ñoo xam ne sax bàkkaar yi seen bàkkaar na multiplier na si Eh, aji saar bandi la nii nangam nangam mais songo dafa ñàkk fayda songo lii lii ak maanu xamuñu lu xew mm-hmm. ah. Sénégal dañu war a maanu mm-hmm. te yàlla nee na bu ñu maanuwul bu ñu teguwul si yoon dinaa leen andil zilzaliya naa andi turabiya naariya mm-hmm. eh, maa iya yooyu yëpp eh, ñàkk maanu moo koy andi ci réew maanaam naa leen andil tremblement de terre. Mhm. dinaa leen andil lakk-lakk. Mhm. gis nga cantine yi. Mhm. yoon ngay dégg ñu naan dëkk marché sàngam mi ngi lakk. ñàkk maanu rek. te ku nekk boo gëmoon yàlla. gëm ni sa wërsëg bu la fekkoon euh, sa biir néeg sax dana la fa fekk. nga sabam lu ko teg ko ci yoon yàlla andil la ko. Mm-hmm. waaye foofu oustaz est-ce que euh, loolu njiit amu ci responsable bu mag euh, bu bu boo xamante ne mën na ko ci jouer mm-hmm. fanta mm-hmm. parce que parce que bu ñu bu ñu demee ba ba déglootuñu njiit bu ñu demee ba njiit bu waxee ñu ne ñu ne kilifa yi sax déglootuñu leen waxul waxul waxul dëgg bu ñu demee ba njiit bu bu bu waxee ñu ne ñu ñu jël waxam tegee ko nele alors seen responsabilité foofu lan la xam nga yant bi dafa ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi kenn ku nekk sàmm la mhm. te ëllëg yow mal xiyaam ku nekk daan la laaj noo doon sàmm fal imaamu raain mhm. bi sàmm la ca ñu muy jiite mhm. ëllëg yow mal xiyaam daan ko laaj nam doon sàmme wal maratu raayatun fi bayti zawjiha la ci kër jëkkëram te ëllëg daan ko laaj nam doon sàmme saanaam ku nekk ba ci président la république ku nekk daan la laaj bu ëllëgee xam nga Sénégal nag li ko indi mooy parpor loolu yëfu bare nit ñi ku ciy wax rek waxoo ngir eh, li ñu naan intérêt personnel. intérêt personnel intérêt général duñ ko wax mhm. mukk. Mhm. intérêt personnel rek la wax. Mhm. te bare na féewaloo yuy andi yooyu moo koy andi. moo koy indi moo tax nit ki looy wax rek waxal rek te yàlla tax. te yàlla tax góor gi daawoon na wax ni booy wax te yàlla tax. Eh, yàlla dana la teral juróomi teraanga kenn du ci mën dara. Mm. dana la teral ci àdduna. kenn du ci mën dara. Mm-hmm. dana la teral ci àllaaxira. Mm-hmm. teraanga àllaaxira mooy fan yii jugee doo ko fekke mm-hmm. am na nitam yoo xam ne daf leen teg ci benn taatu ñu sëgg rek mu naaw dugg àjjana yal ko yàlla defal amiin yaa rabbi dina la teral may la àjjana mhm. dina la wan jëmmam ji dàq àjjana ndax àjjana lu mu neex neex gis yàlla moo ko dàq tey jii boo demoon ñeseen Medina Medina Baye mhm. gis xalifa bi moo lay dàqal wallaahi ah? waaw waaye boo gisee xalifa bi tam boo toogee xalifa bi sa xel dal wallaahi kii sama taalibe la <laughs> maa ngi koy gërëm mhm. loolu mooy moo gën a neexati waaw moo tax yàlla gis ko lu mu neex neex mhm. gëm yàlla gërëm la moom moo foo gën a foor la wa ridwanullahi al akbar waaw ah, ngërëmu yàlla moo gën a foor yëpp moo tax il faut ku nekk jël responsabilité réew ñu teg lépp ci yoon fa tabarakallah mhm. Fanta mu mel ni andi nga thème bu am solo ñaaw njortu mën nañu wax ne actualité la ndax xam mhm. naa ni ñi koy dund bari na ñi ci ñi koy dund bari na <laughs> loolu Fanta bari na loolu nit a ngi dox ñi di dem rek mais mhm. doxul ak conscience tranquille doxul ak sagoom doxul mi mi mi ngi dundaale loo xamante ne moox yàlla rek a ko xam te dara waralu ko rek lu dul euh, gis euh, nit rek euh, dafa am dafa waaw jalousie dafa am benn cas buñ ma ci mës a nettali ci yëfu àdduna la sax Euh, nee na dafay génn ak euh, benn waay euh, xaritu waa ji ñëw ci suuf Euh, naan ko yow looy doyee kii looy doyee kii mm. donc bi mu ko waxee ne ko yow looy doyee kii xanaa mënoo maa xool ndaw si daal di retourner dem ca waaja ne ko ah diw de nee na lan laa lay doyee mm-hmm. waa ji moom it ñëwaat ci xale bu góor bi ne ko lan moo tax ngay dem ci sama coro mm-hmm. di ko wax euh, lan laa koy lan laa koy doyee mm-hmm. sama relation ak moom sa yoon nekku ci daal di ñu xaw ñu xaw cee discuter à partir de foofu waa jële fu ndaw si rombati ku mu toogal bu jógee mu ne ko moytu ko de mhm. làmmiñ bi day dem ku mu toogalati su jugee mu ne ko ah bu ro bu rombee sax mu wax ci moom loolu dem nag ba nga xamante ne ndaw si ku ko xool sax doo bëgg wax ak moom wala ku ko séen sax doo bëgg wax ak moom et pourtant xoolal xoolal xoolal fi mu départ voilà xoolal xoolal xoolal xoolal fi mu départ mu nekk euh, lu doy waar loo xam ne mhm. ñun ñu baree bare bare ñu ngi koy dund ci yeneen i façon mhm. ci yeneen ci yeneen i anam oustaz dëgg la dëgg la loolu mooy indi féewaloo mooy li ma wax sànq boo jàngee ay ba mu jeex yàlla la mu mujj wax <laughs> uh-huh. mooy ñaaw njort boo ko defee uh-huh. da ngay indi féewaloo uh-huh. ndax nit léeg mu ñëw wax la ci loo xam ni euh, lépp boo seetee quinze pour cent rek moo ci dëgg moo ciy dëgg waaw li ci yëpp des du dëgg bi ci des mooy itam diggante nit ak nit sax bari na <laughs> baax rek <laughs> parce que lu ma déggee ma ni quinze pour cent ñoom bu ñu ñëwee dañuy gërëm waa moom sax dafa baax waaye lenn rek moo ko yàq boo demee mais daal foo ko dégg baaxul. mais waaw mais. te te nit ki nag mënut a ñàkk a sikk mënul sikk eh, mënul nit ki pour cent. nul n'est wallaahi nit koo gis am na am na loo xam ni. Mhm. tabaarakallah am na li nga xool ci nit ki. ci lu bon ba wax ko ci moom buñ ko seetoon ci yow gis ci gis. gis ci lu ko mooy li ma wax sànq mhm. da ngay gis ñuy dàq sàcc. Mhm. te ñooñu dàq sàcc bi am na koo xam ne def na loo xam ni buñ ko toppoon daanu bàyyi sàcc bi dinañ bàyyi sàcc bi di ko si di ko kii bu def mooy itam mooy nañu yenente jàmm mm-hmm. ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko laa yuminu ahadukum xatta mm-hmm. yuhibba li ahi maa li nafsihi mm-hmm. kenn si yéen ngam yàllaam du mën a mat